أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu nun ko baaxoo def ci àllarba bu nekk ci waxtu wi ñu ànd ak yéen ci qisasul anbiya ba tey nu toll ci histoire Muusa alayhi salaam tey dars bi ñuy jël mooy qissatu baqaratu bani israil mooy sunu borom subhanahu wa taala am na benn histoire bu xew ci dundu Muusa alayhi salaam yàlla wax ko ci alquran nettalinu ko xissa boobu mooy xissa nagu bani israil xam ngeen ne bu ngeen jàngee alquran di ngeen fa fekk benn saar bu tudd suratul baqara baqara boobu mooy histoire nag bi yàlla di nettali ci dundu Muusa moog waa banu israil nag boobu tey histoire am moom la ñuy jël dars bismillahi tabaraka wa taala borom bi subhanahu wa taala mu neen wahaa hiya qissatu baqaratu banu israil lii mooy histoire nag boobu nekkoon ak waa banu israil nga xam ne sunu borom moo nu ko leeralal naka la waa banu israil meloon ci mbon ci taq tilim dëgër bopp féttéerlu ci santaane yàlla tabaraka wa taala banu israil amul benn xeet bu leen gën a bon waaye amul benn xeet bu leen gën a salte amul benn xeet bu leen gën a dëgër bopp ci santaane yàlla tabaraka wa taala mu ne fa lamma jaahum al amru min allah baleen mbir ma dëkk dikkalee bàyyeekoo ci yàlla kaanu ahrasa annaas ala muxaalafati awamirillah jalla wa ala ñoom ñoo gënoon a xër ci wuuteeg yàlla ku leen xàmmee seen xàmmekaay mooy wuuteeg yàlla yàkkamtu ñu loolu yàlla ne def leen ba ñu lànk ci histoire alxuraan gis ngeen même ba leen na yàlla ne dugg leen ci ni kër dëkk bi ngeen sujjóot dañoo dugg di darngu ba leen yàlla ne neen kunu xet xulu xetta ñu naan xabatun fi shaar waaw waaw yàlla mosu leen a sant def leen ba ñu def ko yàkkamtuñu rek loolu yàlla ne leen bàyyi leen la ñu lànk def leen ñu lànk mu ne ba leen mbir ma dikkalee sunu borom nettali ñu ko ci suratul baqara mu ne wa id qaala muusa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara qaalu atattaxizuna huzwa qaala a'uuzu billahi an akuna min aljahilin qaala ad'u lana rabbuk rabbak يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا سية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قلتم يا موسى وإذ قتلتم نفسا فادأرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون والقصة من histoire bi تتلخص dinañ ko tënk rek gàttal ko lool mu ne fi annahu kaana rajulun fi bani israil benn waay la woon ci xeet woowu ñuy woow banu israil maanaam kenn ku bokk ci israéliens yi ab yahud ne ñoom ku bëri alal kasirul maal waaye wa kaana cheikhan kabir li muy bari bari alal lépp nag am màgget la woon góor gu màgget la woon wala hu banu axin amul doom baayam faatu na yaayam faatu na amul soxna amul dara lu ko wër lan la am ay frère ay rakk yu góor ak ay mag yu góor loolu la am ñoom nag comme gis nañu seen mbokk mi màgget la dem na ba xubidaas alal ju mu yor du jeex waay waay yal na gaaw dee waay ba ñu donn ko waay yal na gaaw dee ba ñu jël alalam ndeysaan ak bëri nit ñu yéene nit dee du jeex parce que am na ñoo xam ne ci seen mbokk dee ci lañuy tekkee ñenn ñi sax seen bàyyi ñooy dee ñu doog a tekki moo tax nga dégg waaye paa bi dafa góo quoi waaye man sama muunin laay laaj sama wàll laay laaj ñaatoon ngeen di dégg loolu mu ne wa kaanu yatamannawna mawtahu waa banu israil ba ñu gisee waa jooju yàkkamtuwuñ lu dul mu dee ba ñu donn ko fa amida ahaduhum fa qatalahu fi llayl kenn ci ñoom tay taylu daal di bàyyi ba guddi mu ñëw jàpp góor gu màgget googu rey ko bi mu ko reyee lu mu def daf koo diri ba ci sële bi yoon sële bi yoon mooy carrefour fu yoon yi dajaloo mu teg ko ci digg bi ñenn ñi ne déedéet da koo rey diri ko ba ci benn buntu kër mu teg ko foofu pour lan pour bu ñu yeewoo ñu ne borom buntu kër gi moo ko reyee falamma asbaha naas ba nit ñi xëyee ixtasamu fii ñu xuloo werante ñii ne kan moo ko rey cooli jug kaw wa jaa ibnu axiihi fa jaala yasruxu wa yatazallam ki ko rey ñëw di yuuxu di bërëngu way lor nañ ma nga souvent loolu la way torox naa way fu ma jëm way man ñàkk naa way man alku naa fekk moo ko rey fa qaalu ma lakum taxtasimuuna wala taatuuna nabiyallah bi coow li bare ñu jiiñante ko yéen a ko rey ndax da ngeen ko bañoon yow mi yaa ko rey déedéet diwa ko rey borom buntu kër gi moo ko rey ñu ne leen coow li jaru ko xuloo bi jaru ko su ngeen bëggee xam ku ko rey yonent yàlla baa ngi fi dem leen ci moom ngeen wax ko mbir mi su ko defee dinañ leen wax kan moo ko rey fa jaa ibnu axiihi benn doomu mbokkam doomu magam la wala doomu rakkam la daal di dem ci Muusa fa shaka amra ammihi mu dem wax papaam bu ndaw boobu ñu rey ila rasulillahi Muusa mu wax ko mbir mi daal di ko koy leeralal fa qaala Muusa alayhi salaam anshada allaha rajulan indahu ilmun min amri hada alqatil illa aclamna bihi falam yakun inda ahadin minhum ilmun minhu ñu ne Moussa ñun de dem nañ ci borom xam-xam yi nekk ci tund wii yépp wax nañ leen mbir mi leeral nañ leen ko waaye amul kenn ku ci ku koo xam ne wax nañ ci daal lu nu mën a dégg moo tax yow ñu ñëw ci yow nga laajal ñu sa borom ñaanal ñu sa borom fa saaluhu an yasala fi hadi al qadiya rabbahu azza wa jal ñu ne ko mbir mi daal wax dëgg yàlla bëgg nañ ni yow Moussa comme ab yonant nga yàllaa la yónni maadaama laaj nañ ñi nekk ci tund wi yëpp kenn xamul dara ci mbir mi yow nag dañu bëgg a ñëw nga ñaanal ñu sa borom mu leeralal nu sunu waa ji kan moo ko rey fa amara allahu an yaamurahum bi zabhi baqra bi ñu waxee loolu Moussa ne leen ah yàlla day mi ngeen wax ne naa ko ñaan naa ko laaj nee na ngeen rey ab nag ngeen rendee benn nag rek di ngeen xam ku rey seen mbokk mi waaw mbokk yi ndax doyul woon bi leen Moussa waxee dem leen ngeen rendi nag rek ñu dem rendi nag doy na wala doy ndeysaan déglul lu ñu tontu ñu Moussa ne leen inna allaha yaamurukum an tasbahu baqara qaalu atattaxizuna huzwa Moussa ne leen yàlla nee na ngeen dem rey nag ñu ne ko moom yow da ñuy reetaan xanaa da ñuy moke da ñuy sayite yow ñun ñu perte nag ba pare ñu perte mbokk ba pare nga bëgg ñu demaat jël suñu xaalis di rendi nag nag luy yoonam ci ku dee Moussa ne leen yéen yéen a wax naa ñaan yàlla nahnu nasaluk ñun ñu ngi lay laaj an amra haza al qatil ñun ñu naan la kii dañ koo rey wa anta taqulu lana haza yow nga naan ñu dem leen ngeen rey nag ñaar yooyu àndul sax qaala auzu billahi an akuna min aljahilin Moussa ne leen maa ngi muslu ci sama borom yàlla yàlla na ma yàlla musal ci way réer yi man réeruma ba ngeen may wax lii ma leen di wax lee man li ngeen wax laa wax yàlla yàllaa ma wax li ma wax dem leen ngeen rey nag man du ma jaahil de auzu billahi an aqula anhu gayra ma awha ilayya maa ngi muslu ci sama boroom yàlla bu ma wuuteeg yàlla yàlla wax ma li ma wax leneen hada huwa allazi ajabani lii la ma sama boroom tontu yéene ne naa ko ñaan naa ko laaj nee na ngeen rey nag yéen kay lii lii noppal dem leen ngeen rey nag dëgg-dëgg doon na doy bi leen Moussa tontoo lii waaye liñ jàng ci aaya bi mooy li Ibnu Abbas wax banu Israil dañoo wowle comme dañoo wowle nag di jaay tar tarloog dëgër dëgërlu Ibnu Abbas nee na fa lamma shaddu shaddada allahu alayhim ba ñu taralee yàlla taral seen kaw falaw annahum amadu ala ayi baqara fa zabahuha la xasala almaqsuudu minha boroom xam-xam yi nee nañ bi leen Moussa ne dem leen ngeen rey nag bu ñu génneen foofu nag bu ñu jël tëral ko rendi ko lanu bëgg danañ ko am waaye comme dañuy jàng tartarlu ak di ñàng-ñànglu ak di dëgër bopp di dëgër dëgërlu mu ne walakin shaddadu fa fa suddida alayhim dañoo taral yàlla taral seen kaw fasaalu an sifaatiha ñu ne ko wax ñu nag bi nu mel léegi ban nag la ñuy rey ñu wax leen nagu sàngam doy ñaata laaj lañ laajagum ñu ne ko léegi laala laajatuñu melokaanu nag bi waaye couleur bi la ñuy laaj encore ati wax ñu couleur bi ñu tontu leen doyul ñu ne ko léegi laajatuñ la nag laaj la suñ la melokaan laaj tuñ la couleur léegi nag bi ñaata at la fa ujibu bima azza wujudihi alayhim ñu daal leen di wax aleykum salaam ñu daal leen di tontu amul problème wax garaaw ndeysaan laaj nañ nag ñu wax leen ñu laaj melokaan ñu wax leen ñu laaj couleur ñu wax leen ñu laaj at ñu wax leen saa ñu indee tont laaj rek yàlla tont te li doon jubluwaay rek mooy même bi ñu laajee deuxième laaj bi nag bi nu mel ñu wax leen dañoo waroon dem rek leen di nag waaw qaalu udu lana rabbaka ñu ne ko Moussa wool ñu sa borom yubayyin lana ma hiya nag bi nu muy mel yàlla ne leen innahu yaqulu baqaratun la faridun wala bikrun du bu màgget du bu ndaw awaanum bayna zalika na nekk ci diggante bi yàlla yemul ci loolu de mu ne leen fafalu ma tuumarun dem leen ngeen defi liñ leen sant doyul ah dem leen ngeen defi liñ leen ñu ne déedéet demu gunde ñu ne Moussa xaalu ñu ne uddu lana rabbaka ba tey wool ñu sa borom de yu bayin lana maa lawnuha nañu wax ban couleur la neg bi nan la mel xaala mu ne leen innahu moom sama borom yaqulu mu ngi leen di wax innaha naka nag bi baqaratun nag la safraun bu gel mooy bu lan zone foncée faaqi un këkk ah foncé dafa zone foncée safrau faaqi un dafa clair ba pare foncé lawnuha couleur bi te suru nazirin ku ko xool rek kontaan doy na wala doyul yamuñ ci de xaalu ñu ne ko ba tey waaw d'accord uddu lana rabbaka wol ñu sa borom ba tey yu bayin lana nañu leeralal maa hiya naka nag bi ndax ñun innal baqara tashaaba alay nag gi dafa bëri fii ci ñun ñun duñu gaaw a xam nag wa inna insha allah la muhtadun ah ibnu abbas nee na bu ñu waxul woon baat bi danañ toog ba ba ñuy dee saa yi ñu posé question yàlla indi leen bu dëgër saa yi ñu posé yàlla indi leen comme léegi nag nee nañ insha allah la leen yàlla nag arrêté sonal qaala ñu ne innahu moom yaqulu mi ngi leen di wax innaha naka nag bi baqaratun nag la woo xam ne laa dhalulun tusiiru l ard wala tasqi l xarsa musallamatun laa siyata fiha nag la boo xam ne bayul tool nàndalul tool bayul nàndalul bayul roosewul ba pare dafa mucc ci bépp ayib musallama laa siyata fiha amul benn xeetu gàkk ah qaalu ñu ne ko léegi nag alaana léegi nag jita bil xaq indi nga dëgg nag léegi ngay doog a indi dëgg nag léegi nag lan mooy mbir mi mooy dañoo war a wëri nag bi nag nag bu mel nii fan lañ koy gis ñu dugg dëkk bi tasaaroo wër fan la ñuy gisee nag bu mel nii dëkk bi yëpp ñu dugg ñu wër di wër di wër ba dem ci benn gétt ñu fekk fa nag bi bu leer leen ne bii la ndeke nag bi benn xale moo ko moom xale bi jirim la baayam faatu na bu yàgg waaye baayam daa dénkaane woon xale bi ne nag bi de lu ñu koy jaayee bis bu ñu koy jaay bu magee ba ñu koy jaay mooy nag bi dañ koy rendi buñ ko rendee ñu fees ko buñ ko feesee ñu tàllal der bi ba mu tàllee ko ñu jal ko or ba mu fees loola nag bi di jar suñ mu nee loolu ñu jaay leen ko buñ ko mënul ñu bàyyi na ko jàmbur moo tax ngeen gis la tegu ci aaya bi yàlla mu ne fa zabahuha waaye wa ma kaadu yafaluun rey nañ nag bi de wër nañ ko ba am ko rey ko waaye xawuñu koo def ndax lan prix bi ni mu seeree benn wër gi sonn na sonal na leen ñaareel bi mooy prix bi ñu jëndee nag bi mënuñu ko woon am bi ñu waree ba gis ko ba d'accord ak borom nag bi ne lii laay jaayee sama nag yi daal di jël nag bi rendi ko ñu jël or jal ko ci der bi ba mu fees borom nag bi daal di jël deram ak oram daal di yóbbu ndeke ñoom benn partie rek lenn lañ soxla woon ci nag bi rek pour ku dékki dékki yenn borom xam-xam yi ne geen gi lañ jël wala du yàpp bi sax geen gi ñenn ñi ne làmmiñ bi lañ jël biñ demee ba am nag bi ba rey ko ba fees ko def lépp dañoo ñëw ci Moussa ne ko ñun dey liñ doon wax yëpp am nañ ko am nañu nag bi rey nañ ko jënd nañ ko Moussa ne leen dem leen ngeen jël làmmiñ bi ngeen dóor ko ki dee ñu daal di jël làmmiñ bi wala geen gi lu ci mën a nekk en tout cas am na lenn luñ jël ci nag bi ñu daal di fekk ku dekki fi mu tëdd ñu daal di ko koy dóor mu daal di dekki ba mu dekkee fa saalahu nabiyullahi Musa yonent yàlla Musa daal di koy laaj ne ko man qatalak ku la rey qaala qatalani ibnu axi mu ne sama doomu frère moo ma rey gis ngeen ku la rey la ko Musa wax mu ne sama doomu mbokk mi moo ma rey allahu akbar qatalani ibnu axi ba mu waxee loolu ba pare lu mu def summa aada mayitan dafa dellu dee kama kaana comme ni mu nekke woon qaala taala kazalika yuhyi llahu lmawta wa yurikum ayatihi laallakum taaqiluun yàlla ne nii ngeen gisee ku dee kii ma dekkil ko ba mu wax ki ko rey yowmal xiyaam mu ngi nii di ñëw seen kanam noonu laay dekkilee ñépp ñu dee waa ji làmmiñ bi rek lañ ko dóor wala génn gi lañ ko dóor mu daal di dekki ne di wama rey deewaat loolu lu muy tekki mooy ruu yi ci loxo yàlla la nekk yàlla lu ko ci neex mu def bu ko neexee ku dee mu dekkil la waaw ko dama ne kazalika nii ngeen gisee waa ji dekki yuhillahu almawta ci la yàlla di dekkile ñi dee kon ku yaakaar ne doo dekki da ngay nax sa bopp ku dee di nga nekk zaama allazina kafaru an lan yubaasu qul bala wa rabbi la tubaasunna yàlla nee na yéeféeri ñoom dañu ne duñu dekki yàlla bu ne ah kay ay wallahi di ngeen dekki di ngeen dekki te dinaa leen laaj li ngeen doon def mu ne yàlla yemul ci loolu waaye wa yurikum ayaati yàlla ngi leen di woon ay aayam ay kéemtaanam kii dee na léegi dekkil nañ ko ci kéemtaanu yàlla yi la bokk laallakum taaxiluuna pour ngeen xelu xam ne ëllëg yowmal xiyaam ci loxo yàlla la nekk jaam ñi ay jaamu yàlla lañ yàlla lu ko ci neex mu def ëllëg ay kama shahadtum ihya haza alqatil ni ngeen gisee yàlla dekkil waa ji dees yi ala amrillahi lahu ci santaane bi ko yàlla sant na dekki mu dekki kazalika amruhu fi sa'iril mawta noonu la yàlla di dekkilee mbooleem ñi dee isa sa bu ko neexee ahyaahum mu dekki leen fi sa'atin wahid ci benn waxtu innama amruhu innama amruhu isa arada shay an yaqulu lahu kun fa yakun mu ngoog yàlla moom ay mbiram amul demal ma ñëw fi mu ko neexee foofu lay amee borom bi tabaraka wa taala nee na maa xalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahid ni ma leen bindee maa xalqakum seen bind wala ba'sukum ak seen dekki ni ma leen bindee yéen ñëpp di leen rey wala di leen dekkil mu ngi mel ne benn nit rek di ngeen yaakaar ne dafa bëri ay façon wala nangam nangam benn kese la dégg benn la dégg benn la illa ka nafsin waahid mu ngi mel ne benn bakkan kon kay amul complication ni ñu bind bakkan bi lañ bind bakkan bi niñ koy reyee noonu la ñuy reyee bakkan bi ni ñuy dekkee noonu la ñuy dekkee amul changement dee dee la dee dekki dekki la ndax yëpp bakkan kese la amul leneen waaw kon borom bi tabaraka wa taala loolu la ñu wax kon xissa Moussa ak banu Israil danañ ci jàng ay njàngit mooy banu Israil li ñuy njëkk a jàng ci ñoom mooy li ñuy njëkk a jàng ci ñoom mooy dañoo wowle dañoo dëgër bopp te nit ay nit bu ñu bëggee yàlla defal leen tawfiix dañuy déggal seen borom waaye ñii wowle nañ wowle goo xam ne dëgër bopp dëgër bopp goo xam ne indil na leen tolof tolof indil na leen ay ay problème moo tax ñu ne war nab julit annal muslim laa yambagi alayhi an yushaddida ala nafsi jullit du taral ci boppam loolu da ngay gis fii sax même ci ay mbokk di tar tarlu fu muy mujje nga am problème jullit du tar yassiru wala tuassiru yombal leen bu leen jafeel yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam innama buistum muyassirin yàlla da leen di yónni pour ngeen yombal faqad ra'aynaa gis nañ kayfa anna allaha amara bani israil an yazbahu baqara li yaxuzu juz'an minha gis nañu yàlla subhanahu wa taala mu ne waa banu israil dem leen ngeen rey nag bi ngeen jël ci tuuti rek benn partie ngeen dóor ci yaramu ku deeki mu dekki ñu nekk fay compliqué qaalu annahum zabahu ayu baqara li xasli almaqsuud walakinahum shaddadu fa suddida alayhim di tartarlu ban nag la nag yi dañoo nuroo ban couleur la am ñaata at la am lan mooy melokaanam dafa gudd wala dafa gàtt gis nga di indi ay complication ñaareel mooy ana birrul waalidayni naka yaru tegginu ndey ak baay yantafi u saahibuhu fi dunia wal axira soo amee baay bu baax mu yar la ci mbaax di nga jëriñoo baay boobu àdduna ak àllaaxira fan la ñuy jëlee dars boobu borom nag bi jëriñoo na baayam bi baayam di dund bi baayam dee itam baayam jëriñ na ko ndax baayam tax na mu mujj nekk borom alal boo xam ne mu ëpp alal ci dëkk ba ndax lan nag bi ñu nag bi ñu jënd nan lañ ko jaayee xoola prix bi ñu ko jaayee kon ndeke nit dafa war a déggal ndeyam ak baayam ndax xale bi ku déggaloon ndeyam ak baayam la moo tax yàlla fay ko même baayam génn na àdduna waaye yàlla fay na ko moom xale bi day jëriñ kiy dund ci àdduna waaye da lay jëriñ da lay jëriñ àllaaxira fa xara ay naa gis nañ anna haza shab xale bu góor bii allazi kaana barran bi walidayhi dafa déggaloon ay ndeyam ak baayam ba al baqara allati kaanu yabxasuna anha bi mil i jildiha zahaman jaay na nag bi mu ngi ko jaayee der bi ba mu fees del del del del ak or haza gayru sawabihi fi l axira nee na lii changé wul lenn ci fayam bu mu war a àlaxira encore am na alal àdduna ëllëg yowmal xiyaam tamit bu góorgóorloo fekk fa tamit jaamu yàlla subhanahu wa taala mbokk yi ba tey li ñu war a jàng ci dars Moussa ak qissatu baqara mooy jullit dëgg-dëgg li mu war a def mooy mu jàngi an yarudda al ilma ila allah li anna allah a'lam bi maqadir al ibad jullit na jàngi waaye bu amee xam-xam na ko delloo yàlla li ngeen Moussa li muy nekk nekk nekk yonent bi ko gaa yi ñëwee laaj lu mu leen wax dinaa laaj sama borom ñaan ko léegi nag da nga gis fii ci ñun ñoo xam ne dañuy mbiru dañuy bew dañuy am xam-xam rek soo waxee rek ñu ne garaawul bu neexee yàlla bu nag bu neexee yàlla bu yàlla nanguwul sax day am gisoon naa waajoo xam ne su bindoon ay xaatimam ba pare póon la ciy def póon mu ne bu neexee yàlla moo am bu naqaree yàlla moo am mais gis nga waajooju bi muy dee da doon woon nit ñi mu ne mu ne nañ ko rey gaa leen ngeen rey ma ndax ma noppalu dafa bëgg dee mënul dee ndax feebar bu metti ku ko ziyaas mu ne la rey ma rey ma balaa ngay génn moo tax yàlla du moroom waaw yàlla du moroom yàlla ku ko def moroom rek da nga koo xamul xale bi ñeme naa ubbi buntu këru baayam mu fekk gaynde daal di taxaw ci buntu kër gi moom xale bi comme xamul lu muy def dafay war ci kaw gaynde gi jàpp ci kawar gi naan ali ali dafay gaynde gi di yëngatu waaye papaam bu ubbi woon buntu kër gi gis gaynde gi lu muy def day daw day delluwaat tëj buntu kër gi nga defee gaynde gi ne xale bi gis nga yow xamoo ma kee ma xam yow xamoo ma kee ma xam ñun tamit xamuñu yàlla loolu tax musiba yi ñuy def nii ñu koy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bés la ko yàlla joxoñ baaraam ne ko jubal xocc comme ni ma la ko santee yonent bi tiit bi jaaw parce que dafa xam yàlla waaw benn bis la yàlla joxoñ yonent bi baaraam ne ko melal ni ma bëgg waaw fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatxaw innahu bima taamaluna basir yonent bi daal di bi jaaw kon moom moo xam waaye ñun xamuñ kon ku am xam-xam delloo ko yàlla waaw yàlla mooy borom jaam ñi moo xam yëpp sunu borom subhanahu wa taala mu bokk kon su ko defee lii moom mooy darsu tey moom mooy qissatu baqaratu Muusa mooy is baqaratu banu Israil bani Israil moom mooy istuwaaru banu Israil ak seen nag fii la ñu mujjee ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñu dégg topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.